ñi fi teew ñëpp yàlla na yàlla defal fan wu gudd ànd ak wér yàlla na yàlla sàmm sàmm ko ba yéene yi mu am ci sàkkal mu eggale ko ndax monsieur le maire ñi ngi ci tey daanu nekk fii bu subaa ñi ngi nekkaat ci leneen pour lamp yi nga xam si moom lañu war a yóbbu ci àll bi xëy na man maay kii wax ko waaye nag moom bu ci kanamee daanu ko wax waaye daal ñi ngi sant monsieur le di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla gën a dëgëral ñu sant di nom de la jeunesse de prononcer ces quelques mots en français pour magnifier l'œuvre grandiose du maire monsieur Ousmane Sakadien. Cette salle que nous inaugurons aujourd'hui vient à son heure et seule une vision éclairée pousser un élu local à penser à ce type de projet. Monsieur le maire, vous êtes en avance sur vos collègues du maire Sénégal. dans la démarche, dans l'humilité et surtout dans la vision. La jeunesse de la commune de Sakal vous dit merci. Une grande vision que vous avez eue est d'aller vers innovant et de signer un protocole d'accord bénéfique à toutes les populations. En bon financier, je suis convaincu que vous avez négocié le meilleur pour toute la commune de, la, de toute la commune de Sakal. Il est temps que la présence de cette entreprise, fleuron de la commune, se sente à tout point de vue. À la société innovante et à son directeur, nous disons un grand merci d'avoir appuyé le maire, le conseil municipal et toute la population de la commune de Sakal dans les projets de développement. Nous vous remercions chaleureusement et souhaitons que cette collaboration produise encore d'autres fruits. Monsieur le maire, cette salle inauguré est un projet très pertinent pour toute la population, mais surtout la jeunesse, qui manquait un local pour manifestation manifestations. Monsieur Ousmane Sakalien, la jeunesse de la commune de Sakal vous sera toujours reconnaissante. Merci de votre aimable attention. ndax jigéen ñoo dem ñu nga toog di waxtaan yéen jigéen ñi nag yii yéen naka moom damaa taxawoon ngiig nag ci campagne bi ma ni waa ngiig mos leen xale bi ndax xale bi ko ko mos na nga ko takkamti ak xale bi xale bi këru banaana la kër gi daa sedd ak doom bi daa nooy kon mos leen xale bi maa waxoon fii nii dama nag waa Sakal waa Sakal jàppale leen xale bi jàppale leen seen doom jàppale leen seen xale jàppale leen monsieur le maire Ousmane Sakal ak équipe bi mu àndal ngeen jàppale ina waa gën a yaatal ina waa ina waa dama ni bu dee yaa ngi ci géew gi di gis naa la lool soxla ci sakkal de la yomb ndax lii jafe woon na nu lool di am nanu may wax jigéen ñi la seen kel dal jigéen ñi la seen kel dal ndax lii bu ñu ko defee kay na am na ku mel ne man nekk ci gannaaw naan nangu nañu seen saal yéen jigéen ndax noo fii doon cuub ak di fi ñaw waaye lii kalaat boo xam ne tey bu ma bu ngeen mayee seeni doom ñu dugg fi duñu abbi dara duñu seeti dara loolu sant yàlla la bu ngeen amee conférence dugg fi du ngeen abbi dara monsieur le maire dañuy tabakal fee ay saal yoo xam ne bu nu bëggee cuub cuub bu nu bëggee def sankal def sal bu nu bëggee wayal wayal bu nu bëggee lu nu bëgg def def ko da koy tabak ne ci gannaaw ci gannaaw nag ina waa ina wanomi lay gueɗem dela sant nun jigéeni sakkal 133 village yi wër commune de sakkal ak ñaar fukki o amu omo ak juróom ñoo ngi lay sant dela gërëm maire visionnaire boo xam ni liggéey rek la bëgg waaye nag dafa am loo xam ni dag fee fekk ñu koy ñaanal yàlla ñaan yàlla ñu pensé un pensée pieuse à notre père Cheikh Birahim Diagne un visionnaire qui était là ñun ñu jàng ci moom lu bari ci coopération mu ñëw am fu mu teg sàkkal liggéey waa liggéey ba àpp mag mu dem yàlla na suuf woyof ci kawam waaw jarabaatam ñëw nag daal di teg loxoom gën a yëkkatiwaat sàkkal donc dañ ñàng ñaan nga eggaleeg sa sago euh, ñi ngi guddal te waxtu waa ngi sore te xëy na daje yombul ñi ngi lancé appel la jeunesse de Sakal les femmes de notre village yéen rek yéen a yor développement bi keneen du jóge ci àll ba ñëw defar fii te lu mel nii bu ñu la ko defaree war ngeen ko téye ak seen fukki loxo juróom yéen ñëpp ngeen bokk synergie liggéey ensemble dëkk bi war dem ci kanam parce que ku defar sa dëkk yaa ngi defar Sénégal te ñun suñu tàkkal bi mooy suñu dakaar mooy suñu Paris te bëgg nañu ñu dox damay déglu bërki démb un conseiller de la mairie domaniale Pape Diop il a fait un discours extraordinaire 72 heures de Sakal il a lancé la Euh, message à la jeunesse nee na ku amul kër na nga ñëw bindu ma jox la kër loolu lan la mooy bëgg xale yi téye resté ci dëkk bi liggéey pour dëkk bi mën a am main d'œuvre main d'œuvre boobu ñun looñu soxla pour dëkk bi kenn bañ a génn parce que am na immigration clandestine te loolu soxlawuñu ko xëy na ñun am nañ nattu tukki waaye bu ñu bëggee ngeen di tukki dañ bëgg ngeen jaar ca yoon la yoon bu leer visa mën a dem tukki indiwaat mais gaal moom bu ko kenn jël loolu moom dañ nit dafa am lu mu moom ak lu nit ñi moom ci moom di sant yàlla ci lu ma defal loo xam ni dem naa ba moomatuma sama bopp ci yenn yi seetaan waratuma noppi waratuma parce que boo seetaanee noppi te ni bëgg nga lu baax des na maam jarbaat buy yëngu nag ci yëf jarbaat boo xam ni ba ma defee nijaay du tey booba dara du dara li tax ma bëgg ci moom it mooy na mu meloon booba ba muy tuut tànk dara soppi ko wujje xanaa li ci soppi ko de mooy làmp boosam di ma jox ku am nag ndaw lu mel noonu mu am gis-gisu lu mel nii ak leneen loo xam ne dana mel nii mbaa mu dàq ko mu fas ko yéene indi ci commune boo nee bëgg nga réew mi wala bëgg nga dëkk bi te jàppale woo ko xaw ma loo bëgg ñun nag tollootuñu fu ñuy xase nit tollootuñu fu ñuy xase parti fi nu toll mooy commune sàkkal dajale seeni lépp xam-xam am am luwaay am takk sa ndigg derrière la camarade Ousmane Sakkal Dieng ñu defar sunu commune ba nga xam ne fukki commune yeeg ñeent ñooy ne ca kanam amuñu géej amuñu dex commune u waaye fi ñu toll cinq premiers yi génnuñu ko te wóor na ma ni suñ ko jàppalee daanu dem ca kanam je présente mes aux autorités locales. Euh, je suis Monsieur Colin, responsable pays du groupe Innovant. Alors, il m'est vraiment difficile de suivre euh, après mon père, Monsieur Diop, et ma mère, Diary. Donc, je pas leur éloquence, mais nous avons quand même l'engagement ferme aujourd'hui et depuis notre installation sur cette euh, mairie d'accompagner vraiment le maire et la population de Sakal. Et aujourd'hui, euh, mon PDG n'est pas là, mais je sais que là où il est en France, il est totalement satisfait et content de voir ce qui a été réalisé dans cette salle. Parce que nous avons visité la salle avant la réflexion. Je de vous accueillir au nom du conseil municipal pour l'inauguration de cette salle. C'est la concrétisation

de relancer des domaines comme la culture et les échanges. La réalisation de cet ouvrage est au service du plus grand nombre, notamment des familles et des associations, pour avoir un lieu pour recevoir dignement nos hôtes, pour organiser nos manifestations et communiquer en toute quiétude ou encore festoyer en toute sécurité. C'est toujours un grand plaisir et avec une certaine fierté pour les élus que nous sommes d'inaugurer une infrastructure communale qui s'inscrira dans le temps. Comme toujours, en pareille circonstance, il nous faut évoquer l'aspect financier des choses. Si ce projet a pu voir le jour, c'est également grâce au financement et à l'accompagnement de l'entreprise innovante dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale de l'entreprise. Messieurs, au nom du conseil municipal et des populations, soyez en remerciés. li nga xam ni ba mu ne kun new fay kun yàlla bi nga xam ni lu mu nas du xëpp te lu mu roof du jàngar kontaan ci dalal leen fii man ak équipe municipale bi ci cérémonie inauguration salle bi nga xam ne li ñu ci jublu mooy mu nekk salle bu polyvalente maanaam saal boo xam ni mbooleem xeetu ndaje mënees na ko fi defee mu nekkoon projet bu ma ñor lool avant sax may nekk maire mais tam ma nekkee maire ba léegi ma ci xalaat ndax jumtukaay bu manqué woon la fii ci commune de Sakal soo waree dajale juróom fukki nit rek pour ngeen waxtaan doo am barab boo ko defee ci commune bu toll ni sàkkal ma jàpp ni loolu jaaduwul saal bu mel nii nag dafay ñoŋal suñuy dajee te lu mel ni cosaan ak caada mënees na ko dundalaat ku wax projet bu mel nii nag wax koppar ak taxawaay lii su ma ko mënee xalaat su ko maire bi mënee taxawal dafa am ñu jàpp suñuy mbagg entreprise bi ñuy wax innovant ñoo ngi teew ma bëgg ngeen tàccul ma leen ñoo ñu ko financer ginnaaw bi ñu ko xalaatee tànn ko comme projet bu maire bi war a doxal moom nag mi ngi ko def ci li ñuy wax RSE dinaa ci ñëwaat kon ci turu conseil municipal ak population yi ma leen di sant di leen gërëm novembre 2023 laa jël avion dem France seeti directeur u Innovent pour waxtaan ak moom ci wàllu teewaayu Innovent ci commune de Sakal ak ban njeexital la war a am ci commune bi la ma waxoon foofu nag mën naa ko waxaat fii ñoom dégg nañu olof anglais mi may dégg bi ma demee dama ne sama bopp ñoruma commune de sàkkal moo ma ñor du ma maire bu ñuy peeg du ma maire bu ñuy jël ci rox innovant daal teewaayam na feeñ ci ay projet population yi jëriñoo ko ba ku ñëw ni innovant mi ngi Sakal boo gestoo am loo duur baaraam ni lii innovant moo ko jàppale maire bi ba mu def ko avril 2023 ñu dalal PDG bi def cérémonie wax nit ñi ne kii ñëw kat indaale na trois cent soixante trois millions yoo xam ni commune de Sakal ñoo ko moom loolu nag boo ko waxee ba pare da ngay jublu ci léggéey bi wan leen xaalis boobu fu mu dugg xaalis boobu amoon na cent vingt millions RSE boo xam ni Innova moo ko war a am ci taxawaay wax naa ko jàppale ko collectivité bi amoon na ñaar fukki millions ak juróom yoo xam ni dañ ko négocier loon ferme bu barale jox nañu leen ko koppar yooyu moo tax mairie bu Sakal tàmbali liggéey bi ngeen gis fan yi mën naa ci jiital sous préfecture ba nga xam ne ñu ngi koy defaraat fan yi ñëw incha allah dinañ ko inauguré bi tax ñu def ko nag mooy sous préfecture bi fépp fu commune de Sakal taxaw di waxtaan ak innovant ñoom ñoo fay taxaw jàmbaare lool pour saytu suñuy yelleef ba nga xam ne lépp dina jaar yoon ci wàllu état. mais wax naa léegi ne sama xel dal na parce que monsieur le maire dalal dalal na xelu jigéen ñi. wax leen ne vraiment am na ay yéene pour lu bëri mu defaral leen ko xanaa li ma koy ñaan rek mooy mu teel ko def ba jigéen ñi gis ci seen bopp man nag dama nekk koo xam ne fu ma nekk moom damay waxal jigéen ñi laay waxal waaw ah, moom vraiment loolu sama jikko la dama koy sant yàlla lu tax loolu aussi ma mënul dem te jigéen Sénégal gis nañ loolu moom bu ñuy xool saal bi xam naa ni jigéen ñi ñëw fépp waaw ah, kon dañ leen di gërëm di leen sant di leen jaajëfal seen taxawaay si développement Sénégal du ma wax développement sàkkal gis nañ ko mais développement Sénégal defe naa ni jigéen ñi am nañ si taxawaay bu rafet a rafet fu ñu toll dañ leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal taxawaay yi yamul sa sufi parce que si kër yi aussi xam nañ seen taxawaay kon jigéen ñi gàcce ngalaama comme ni ko wolof Njaay di waxee kon nag pour bañ a am na ay kàddu yu bëri yu ma fi dégg muy solidarité solidarité mooy dimbalante vraiment maire yëkkati fi kàddu yu rafet si jaar-jaaram wax ne moom vraiment foofu mu jaar ay doomu Sakal jaar nañ si jàppale nañ ko te moom wax na ko il faut aussi nit ñi xamee ko noonu day tax rek waa Sakal gën a booloo koo xam ne mën nga ko dimbali te yàlla tax nga dimbali ko parce que bu boobaa Sakal nga dimbali ma dégg fi aussi beneen wax boo xam ne aussi téy naa ko man xam naa ni waa Sakal bëgg nañ sàkkal loolu moom xam naa ko parce que si teewaay bi ñu amoon ak waa ASC yoon wi monsieur le maire doon na tooñ mu ne bu fekkoon dañuy def concours boo xam ne dañuy tànn ki nga xam ne moo gën a bëgg sàkkal kon waa sàkkal yépp ñoom ñooy gagné loolu kon muy wane ne vraiment waa sàkkal aussi ay jàmbaar lañu si Cheikh Ibrahim Diagne kon bu boobaa dañ koy ñaanal aussi buur bi yàlla xare ko àjjana yéene yooyu mu amoon aussi pour sàkkal ñu ñaan yàlla monsieur le maire moom mu eggali ko kàddu yooyu rek la ñu waxoon ne dañ koy yëkkatee rek si turu madame le sous-préfet du département ku si nekk gërëm nañ la sant nañ la wasalaam. waaw dañoo dàgg joxe. waaw yàlla mooy quoi. maa ngi jox gars bi la. si tailleur bi bi. kon comme ça avant. Maintenant, machallah. Machallah. Machallah. gis nañu boole sax Tamba yi ñu ñëwoon bu bëriwul. ça c'est le l'immigration du sang en 2014 avec le maire ça sont les membres de l'ONG qui s'appelle Là aussi c'était l'arrivée de Michel le maire à Terrassa, Sénégal. Là-bas c'est c'est quand même